leen xamal ne dem ba Diop ma nga dëkk Nayobe rakkam rey nañ ko bërki rey nañ ko fan yi passé biñ ko reyee dañ ko dugal ci benn canal pendant 15 jours ñu di ko wër gisuñ ko keroog ba ko français yi trouvé woo mag ji na ko sa rakk ji nga doon wër gis nañ ko ñu woo ko mu ñëw rakk ji mi ngi tudd Maja Diop mi ngi dëkk dëkk bu ñuy wax Nayobe ci région de Diourbel biñ ko ko wonee na ko koor baa ngi nii mun leen waaw ñu police scientifique moom la ma wax na ñoo suñ consul ba fa nekk bañ ko wooyee laaj ko na ko ah yow de am nañ fa doomu sénégalais bu fi dee mu daal di wax ak ñoom la mu wax ñoom daal di jël numéro frère bi frère bi nee na ba sànq ci suba la gëj a dégg maanaam euh, consul ba benn jéego defuñ ko ci démb la ma yónnee lii di demander procureur mi ngi nii dafa def demande procureur xool leen France di ko demander ngir yàlla ngir njoxuñ corps bi pour bu am deux mois maanaam état Sénégal ñu ne ñun am nañu député am nañ ñoo xam ne ñoo ñu toogal bitim réew. di ñu jàppale di ñu defal dara te maanaam koor bii ñaari weer a gi ni ay mbokkam di ko xaar mënut a fexe bu ñëw. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa man la Demba Diop. man la sama rak gaañu. di Maje jóob mi nga xam ne moom la Cheikh Tidiane Ndiaye doon wax. man maa ko ko waxoon. pour mu di ko wax. gaañu gi nag nii la demee dafa amoon rendiw vous ak garagiste pour mu defar contre-visite kooku ku nekk France dana ko xam bu ma la bu ma ko waxee noonu contre visite pour muy passer visite technique. bi mu demee nag ba ngoon gisuñu ko ci ëllëg sa nag laa dem ci garagiste bi mu ne man maa ko joxoon rendez-vous. onze heures et ndax keroog xëyut da doon taw. waaye moom gisu ko. nee na après midi bi mu ñëwee gisu ko fi. léegi nag euh, nun sunu boppu déclaré nañ ko police dem naa police déclaré police it mi ngi wër. police euh, France nag man du ma leen yedd fenn du ma ne it dañoo def nii dañoo négligé wala dañoo na lañu war a def dépp ñu ngi ko doon def ndax wër nañ biñ gisee corps bi it commencé nañ wër ak seen hélicoptère wër nañ lii raison bi yëpp ñun nag noo ngi dëkk dëkk buñ naan Mobiliar ci raison sanson bi Sénégal nag noo ngi dëkk dëkk buñ naan ñoom rek ñoom Niomre lan dëkk sama rakk bi nag daa toxu si woon Touba Soura dëkk ak ci sëriñam foofu à la fin euh, waa ji nekk Louga moo nu joxoon numéro téléphone Cheikh Tidiane Ndiaye nu jot ko biñ ko jotee it Cheikh Tidiane Ndiaye jox na numéro téléphone consulat bi nekk Marseille mu wax ak ñun téléphone na bu Paris muy Amadou Diallo Amadou Diallo nag maanaam da ci doxul benn tànk yu leer daal la la ci doxul ndax euh, keroog ba mu gaañoo bi mu gaañoo police scientifique woo na ko wax ko ne ko am nga ko gaañoo kooku kon yëg na ko woo ma ma ñëw mu ne seen consulat yëg na ko. téléphoné na ma nag ñaari yoon la ma téléphoné ma téléphoné ko benn yoon jotatuma ko. lii nag daal la ñuy jooytu ndax. ñi nekk ci bitim réew bu fekkente ne léegi si seen consulat mun leen a taxaw kan moo leen taxaw. kan moo nuy taxaw. danoo mujj jël avocat ci sunu xaalis. dem avocat bi luñ ci xam léegi moo nu koy wax. a ah, léegi nag nu wër wër wër wër wër parking yeeg kii tout ma téléphoné pompier téléphoné tout gisuma dara te diggante fi mu réere foofu mu dëkk bi mu réere ak dëkk bi nu dëkk mat na vingt-deux kilomètres te dëkk bi nu dëkk lañ ko indi ba ci kanaal bi ci kii soso bi nga xam ne dañuy fi ñuy defaree oto poso yi ci kanaal boobu ci garab yi foofu lañ ko dugal kon nag dañ ko rey fële andi ko ba foofu ñu dugal ko fi ndax police li tax mu téye ko booba ba tey mu kon docteur li tax mu téye ko booba ba tey nee na cause bi mu dee la ñu xamul ndax jàmmuñu ko fetaluñ euh, dóoruñu ko dañ koo tuufee la ñu wax léegi nag euh, tuufee que ça comme dañ koo pompe daal loolu daal laaj xam ne moom noonu daal la mbir mi demee moo tax ñu téye ko nag ba léegi police it maanaam dañ ko ko yëgal mu ñëw waaye police pompier ko jëkk a yëg ndax am nappkat moo ko gis woo pompier pompier ñëw bi ñëwee papier mi yëpp carte séjour am registre de commerce am nox dentaire am ak portefeuille bi def xaalis beeg yooyu daal gisuma ci dara te pompier foofu ñu ko dugal pompier wàcc na ci ci biir ñoom nuuru nañ lépp am nañ fi ñaari fan di nuur di di di di ci biir kanaal bi ne papier yi newul fii bu fi newoon ñu gis ko jël nañu hélicoptère wër lii raison bi tout ay gisuñu gisuñu oto ba léegi waaw ba tey it bi nu sonnee ba sonn dañoo jël avocat avocat bi nag léegi moo nu bindal lettre léegi pour nu ñaan procureur ñaan nan ko nag waaye sofey boobu mooy ñaareelu lettre waam waaye daal ba daal fi ñu jàpp fi lañ jàpp du ngeen nu ci mën a jàppale daal ngeen jàppale ñu nag loolu di Cheikh Tidiane Ndiaye dox nag maanaam laabir rek ak leen muut yi rek moo ko ci fekk nag waaye dara am néewu ci waaye nguurug Sénégal moom defuñu ci dara loolu nag lan doon jooytu ak luñ ci mën daal ak luñ yenn ci mën a dimbale daal ngeen dimbali nu ci daal muy sëriñ ceeg ñëpp daal xeebu nu ci kenn xeebu nu ci kenn xeebu nu ci kenn ku mën a yëngu fenn fu ne daal xeebu nu ci kenn léegi baax na mu ca xéewal